was is for. ci loo ne. sant yàlla. mais guy gi da ngaa tardé gars yi doon xaar nga football footballoo li nga def foo ko teg. non tardé wu ma sax. tardé wu ma sax dafa am ñu ma doon def. xam match bi dafa am noo ciy duggee tey damaa yàggoon ni. waaye ah, bi ma ñëwee gars yi am fu ñu ma jiitu quoi ma leen garaaw loolu laa gisoon waaw ah, gàcc gu gudd gu gàtt xaw ma moo gën gu gudd quoi <laughs> te yow pël un nga yóbbu nit fu vaar xaw ma nan loolu laay bañ TikTok waa loolu laay bañ <laughs> kaar yi damay bañ ñu ni bokk naa ci kaar yi Omar Bass mi wax suñu match bi. initiative bi fu mu jógee. initiative ci Bokar Events quoi vraiment muy sama benn boy bu nekk États-Unis ku baax xaritu Elton di ko nuyu ñaaf Elton vraiment mu boole ñu. bi ñu boolee mu ni guy gi dama bëggoon sa équipe bokk ci bokk ci équipe kii bi ma ne ko ah loolu rafetlu naa ko wax ko Balla Gaye wax ko Sa Thiès fils de Balla Fifty Cent ñëpp booy yi ma ànd ak sama rakk ñëw tamit gis nga ni ñëwee vraiment muy lu neex loo xam ne ñëw Liberté football TV muy loo xam ne vraiment initiation bu rafet la quoi fekk fi ñoom Dame Ndoye Bayel Sall xam nga joueur équipe nationale yi muy loo xam ne vraiment tamit artif lay doon parce que am nañu yeneen match ñu a expérience voilà parce que sunu booy ñoom Paulo ñoom Paulo ñoom ñoom ñoom Fallou médecine ñoom ñëpp ñëwoon nañ tey pour mën a participer mais équipe bu la mënee mën nag mooy yàq match bi. dina fekk ñoo nga xamante ne football bal bi lekk rek lañ ko doon def ngeen ne da ngeen di man damaa jël Omar Bass ne ko. yaa yàq match bi amoo loo fiy xoolee. man maa dugal bële man maa dugal. yaa raté man yow nga laaj Messi Messi Messi sax day na penalty Neymar day raté penalty Sadio Mané raté na fa suñu penalty coupe d'Afrique final. da man dugal na da ngaa gerte yaa defar yaa yàq. maa maa dugal maa changé sa bi maa ñëw dugal penalty nag loolu la ñu ma ko maa ngi koy doog a raté nag yéen a bon. guy gi. xoolal xoolal du ma ñëw tee na leer. bu ëllëgee du ma ñëw de. Omar sama koñ dañ ma ni Omar Bass dafa mën a football. ku ma laaj mu ne ma noo day dugal ma def ko sama yaakaar gisoo bi ma ñëwee gisoo damaa ñëw rek génn génn maaji maaji nekk nekkale bi ma génnee maaji maaji affaire bi gën a gën a gën gën ñoo contrer ma yaakaar ni Omar Bass li muy doog ñëw tàngagul mais li muy génn tàng di génn arrière. sama yaakaar waaw mais kan ma dugal. man maa dugal. kon moom moo dugal moo yaa. déedéet dugalul. Eh, man maa dugal. sama yaakaar barki Serigne waaw dugal kon xol dafa naqari da nga am déception yaakaar gépp a tas da nga dem ne ko une moo ma jël si indi may teg ko sama yaakaar defe naa ne man damay dóor ba doyal waaw mais kan moo fi ne man ma yàq ma si bi yéen sama yaakaar waaw gannaaw léegi dàq ma dàq ma <laughs> moom nga ma dàq boobu moo ok bàyyi naa waaw mais pël kontaan nañ nag war naa kontaan nañ parce que lii moom day boole te gis nga ñi ngi fi gis ñëpp mbër yi tey bu doon lii duñ dajaloo yow yow xam nga géeyaay ni demee te vraiment biñ dajaloo xam nga ni vraiment ñëpp dañ koo fubal ak euh, xol xol bu neex. <laughs> mais guy gi boobu ba léegi combat yi fu mu waaw ah, fa pël maa fi man moom xam nga nii. gars yi ñu taxaw de boobu ba coow la naa ni léegi dina taxaw incha allah. parce que léegi dina taxaw. dina taxaw léegi incha allah parce que dafa am lu ma def ci làmb tey <laughs> du guy gi ko ci làmb wala guy gi da nga koy a génne ci làmb nga. non ñi wala tey yenn dox yi nit ñi nga xam nit ko teg ak moo tax ñu laa génne ci làmb. non bari na loolu bari loolu bari ñu koy wax tey bari na. dañaa jàpp na dañ laa bëgg a génne ci barke yàlla pël barke yàlla parce que booy seet booy seet tey dangay mel ni ku mel Tyson 2 ma jël exemple def nangi combat ñetti defet mais doo dégg mu am combat ak yeneen ak yeneen ak yeneen genre yooyu loolu mooy dañuy génne ci làmb génne ci làmb bi mooy tey ñi war a tëggal duñ la tëggal wala ñi war a wax ci wax duñ wax ci yow bu ñu wax ci yow leneen lañ wax ci yow te man yoruma sama télé bi sama sama sama xawma caméra bi di di caméra ba ba nit ñi xam ma dama yor suma suma martakin suma wax suma jëf Mor Faram noonu la def toog ne carrément guy gi day jëf day wax lu mu am liggéey ko ko may Mor Faram kon Mor Faram la ma doon wax ba tey laay Mor Faram damaa dugg ci école bi mu jël ma def ma koo xam ni comme kum jur su may entraîné fu ma nekk ci àdduna dama fay fekk ñëw entre entraîné ak man loolu moo doon Mor Faram doon def bu doon dëgg tey fu ma nekk du ma fekk di entraîné ak man Mor Faram kenn ku ne xam ko ci fulla loolu yàgg na sama entraîneur di ma fekk ngéylum di ma fekk saakajoor kajoor di ma fa fekk menn saa kajoor bi may bëreeg mbay juuf naaju tàng laa doon contact suñu ginnaaw kër Wara Sarr ci pexe man moom Malal laay waat fii ci seen mi tey di ma fa fekk may entraîner kon yàgg naa génn di entraîner ji ak ak yeneen ak yoo xam ni xam nga ñoom ñoom xam nañ mais am na loo xam ni comme li ma wax fóotum biir la parce que man defe naa ni man defe naa ni am na loo xam ne sax du ma ko expliquer ci caméra mais fóotum biir la mais daal man maay école Mor Fadam man maa école Mor Fadam man. Mhm. boo déggee loolu. waaw boo déggee loolu parce que damaa seetaan saako yoo def benn live bi mu paree une heure temps ñu déggante te te live boobu noonu am na lu ma yokk lu bëree bëri bëri bëri bëri am na lu ma digal ne ma noonu lay entraîné noonu lay entraîné incha allah bu neexee yàlla ne ma digal na entraîné noonu lay entraîné bu soobee yàlla te nit boo fekkee da nga bëgg jox ko sa bopp lu mu la wax da def te incha allah dinaa ko def mais defe naa ni euh, am na loo xam daal pël. li ci kanam loolu bët di nuyu waa États-Unis bu baax nag vraiment suma gaay yëpp ñoom laa Ndiaye Yamou Ndiaye Mama Mati Dabel Amital Abdou Medina xam nga képp kuy bëggee guy gi sama grand frère Jibi Sili la maa koy nuyu bu baax depuis au Paris kuy bëggee guy gi pël maa ngi lay nuyu parce que vraiment nuñ ma seetaan gi mooy du xaalis. war nga pour dellu si écrit wala yaa nga ama cey cooli man dama la cey cofal. te bu ba avant nga ñëw dama la cey cofal bañ nga ñëw bañ nga ñëw gu mooy. li ñuy wax ñu xam ne loolu amul néew ma duma dem ci équipe bi équipe ba Peul mais équipe ba entraîneur yi ci boppam sax ñoo gën a am jafe guy gi pour mu leer mais am na xam du waxi journaliste di nuyu suñu président Périsi Pathé entraîneur yëpp maa ngi leen nuyu mais buñ jël guy gi moo ci gën a néew problème. a jël lépp sëf la. moo ci gën a néew problème man école bi mu ne mu baax rek laa bëgg mu tegu ci yoon école lu mu am moo ma ko may. mais dañ laa war a génne équipe bi. Peul bu ma saako yor ne woon damay génn équipe bi. da da damay metti wala man pël sama entraîneur fu may nekk fekk nañ ma fa loolu yàgg na du tey mun naa ci junj rek sama combat tey Ama Balde sama combat Ama Balde tey am na bu ma ko waxoon tey mun naa yeeyaat yeneen ay digg bëccëg ay action ay détails mais yàlla moo fi nekk jour boobu laa ñu war a bëre ak Ama Balde may dégg ma dox ñu tibb sama tànk noonu ma simmi tànk nee ni tegal leen ni ne leen tibb leen ma simmi daal tibb leen tànk dama koy daan boobu am na lu ma yëg boobu parce que boobu xam nga sot bi métti na ak yéen ñëpp daa am lu bokkoon bool bu ñu doon bokk di lekk. ñëpp daa bool bu ma doon bokk ñu nekk di lekk ñi nag dañoo gedd ñii siis man ma xaar ko fa di benn benn ba mu ñëw man dama tarbiwu ku nangul kule yilif doo yilif kenn man saa kajoor laa tarbiwu ba am li ma am tey dama koy wax ci kaw. saa ko yor xoolal barke alxuraan dañ doon toog di entraîné ak ay nit mu a leen kii nii mu ñun ñëpp mu entraîné moo ñu ëpp doole ma koy dégg ci mu ma koy jëwee suñu waree benn def benn poli mu ne ma guy gi na ñëwee mu poli ko mu kii ko roode ko benn buum su ma ñëwee ñaata yoon laa bëggoon genn équilibre ma faram ñëw ci saako yor na ko eh damay dem mu ma lii ngay def lii ngay def ngay def mais loolu su ma amoon tey man li ma daj ci équilibre ma faram bu ko benn booy daj équilibre ma faram doo fa toog mais dama am kilifa tarbiwu nekk fa tey su ma neexoon tey mun naa dem li ma doon daj mu métti ma dem daw dem tukki su ma demee école ba lu ñuy wax looluy gën a bon mais dem ma mënoon naa def noonu dem mais def ma noonu damaa ñëw toog fi ma toog gérer su rek école Mor Faram continuité la Mor Faram moo fi nekkoon am fu ko yóbbu ambulance ñu am fu mu ko ñu am fu mu guy gi ñëw am fu mu ko triplé triplé triplé yóbbu ko fa kon ku kon kon ku ma santul da ma war a bàyyi ci li ma nekk te ni ma demee la samay rakk di ñëw ay seex super jamono tey ñu ngi fi. di góorgóorlu ah ak yeneen yeneen boo xam ay safara ñu ngi fi di góorgóorlu ah, mais tey boo boo tawee tey wala yenn détails guy gi dafa war a génn école yi moo faram wala dañ ma war a dàq loolu man duma ma tontu ci détails yooyu xamul tax ñu ñoo bokkandoon di bëreendoo ñu ni guy gi dof la mu ñëw gëm boppam nekk ci benn vaam ñu jàppee ko dof mu jàppee boppam nit yow mi jàppee sa bopp nante rek bi maanaam gis nga gis nga gis nga marchandise kii xaw ma nu ñu koy waxee. Euh, Euh, xaw ma nan euh, déedéet euh, boo rek les pertes xaw ma nu ñu koy waxee marchandise liggéeyu waaw waaw boo rek les pertes liggéeyu ndey marchandise la soo rek les pertes laaj ko sa yaay wax boobu nag neexul dégg liggéeyu ndey marchandise la boo rek les pertes laaj ko sa yaay pël su ma taxani bi mu ko bàyyee yàggul bi ma yàlla dimbalee danaan taxani ñëw ñu doog a añ. sama yaay toogul suma kër papa rek di kenn xamul sama papa ñeenti soxna la amoon tànga tax ñeenti ñëpp de ñett ñëpp dem sama yaay muñ ko fa xaar ko fa. lu la waaye lu waay rawee guddi di liggéey ndey bu ko jéem a dab raw na la doo ko dabati mukk nañu wuti liggéey ndey ñaanoo ñaari waajur man topp ma ci internet di wax. kii du ma bàyyi ma fenn Pape Bouguy gi xam nga ko gàmmu bu ci des sama papa damay ñaanal bay jooy sama yaay damay ñaanal bay jooy. sam papa bëggul woon ba nii nii nii nii nii damay toog di waxtaan ak moom comme ku nekk ak suma morom sama yaay tamit noonu du ma sàmba àllar samay mbokk boo duggee na ba tey barke alxuraanu karim amul kenn ko yëpp ma fa kenn du ma yëpp te luñ fa dugal sama loxo dem ci war na faa dem amul kenn koo xam ne dina ma ne ma gàcce ngala wala cam. moo la war léegi combat yi fu mu toll. léegi boo déggee non dafa am wax yoo xam ne dafa jaar ci diggante waxu gu ma génn gu woon boobu kenn ku ne di wax te yooyu dépassé naa ko. man jëluma sama làmmiñ bi pour wax ci di fen di fen ba gëm samay fen dama jël sama jëmm ji di jëf di jëf di jëf ba gëm samay jëf xam ne maa fi nekk tooguma ci internet ñu naan kii nangam ay preuve laa def man ay preuve ku ma bokkal dimbal naa la. d'accord guy gi loolu nga war a def ku fa nekk ku fa nekk ku fa nekk ngay mbër munoo waat ne mus ngaa musoo noo juróom juróom. ci gàttal loolu junju la nga génn def vidéo ne mosuma sama juróom. loolu loolu loolu sa wareef la loolu nga war a def. na xaar wax la rek dafa wax ji day ëpp quoi des fois gis nga nit dafa am looy jomm ak loo ak jomm ak ragal bokkul te léeg-léeg nit wax dara ma bañ tontu ñu ni guy gi dafa ragal te am looy jomm la pël ku ma xam man Pikine laa Thiénaba laa juddoo màggee Pikine yaroo yaroo géej jawaay mais ku ma xam may wax su ma la waxee di nga nii dëgg la. billaahi pël barki yàlla fu ragal xëyee xëyoo ma fa mais am looy jomm ak looy bañ bokkul am looy bañ ak looy jom man nag nit bu waxee nga am at oto am kàddu di wax ci tele bi ñu dégg la yow xam nga sama jikko noo def dama lay woo tontu la. ñëpp xam nañ ko sax. beneen bi bu bu nit waxee tontuwuma la nawlewuma la mais bu ma la tontoo nawlowuma la mais dama lay wan ni carrément nawlowuma la mais dama lay tontu ba pare xam ni yow nawlowuma la mais bul yaakaar dama laa nawloo moo tax ma lay tontu déedéet dama parce que kaddu gi nga di wax di bënn bët di di li bët di wala ngay wax leneen ci laa lay wax ne la carrément man nawlowul mais dinaa la tontu. d'accord guy gi di nga xam ne man mii tontu naa la parce que nawlowuma la. waaw foofu leer ñun tamit dañuy dem ñëwal ci combat yi laa la wax combat yi. te nit ku ne daa am koo koy rusee. combat yi mais am na yoo xam ni am na yoo xam ni day ëpp. parce que xamal lu tax bëgg wax ci combat yi. Ah, non dinaa jox Paul dinaa ñëw dinaa ñëw parce que Paul xam nga euh, xam nga làmb làmb dafa toll boo xam ne boo noppee rek ñu rend la. te Paul ñu def la nagu sax. te Paul dafa am lu ma fi def Paul Paul Reug Reug mën naa daan ko ne bi bi ma daanee man maa leen njëkk wax ni bi mu bëri Sa Thiès Sa Thiès daan ko maa leen njëkk wax ni mun naa am combat bu gën Sa Thiès di bëri barke alxuraan maa ko njëkk wax woo Fatma Dieng mu ñëw ma rayal leen xar bu jour maa kontaan anam tey bëriwul Sa Thiès bëriwul champion la day dem mais nit ki da ngay waxal dëgg da ngay wax ay erreur mais buñ ma makassar makassare xaw ma nu ñu koy waxee noonu def ni man defuma dara ci làmb champion la guy gi maa ngi lay jaajëfal. waaw mais non bàyyil ba jógee yow fi nga war a dem ba ñëw voyage ñu yaata parce que li ma war a génn ci xol moo bëri yow it di kontaan ci yow. parce que vraiment bu may kontaan parce que Pawlish nit nga koo xam ne yow doo waaj a jiibe doo jaxase bëri na koy réglé ci suuf bëri na yoo xam ne nii tey boo ko doon wax musibaam mais da ngay woo sa téléphone woo sa téléphone yow man xuloo naa xuloo nga ak nit ngir man. man yëg ko yeneen ak yeneen kon duñ mën lul jaajëfal sant la gërëm la dina ñaan yàlla yàlla musula ci accident làmmañ parce que li wax ci làmb da xam da wax loo xamul boo ñi xam ni amuñu benn preuve toog ratatatatat mel ni di inventé wala ñu fen ba gëm fen waaw di ñaanal ñëpp jàmm di jégalu ñëpp nag di kontaataal ci ñëpp nag voilà. ayca jaajëf.